asalaamaaleykum namoon naa leen yéen mi di seetaan Sahel Network TV nuyu naa leen ziyaara naa leen sargal leen di leen bëggee di bëggee soppe yépp képp ku seetaan loo yëngu rek bëggee naa la lu bëree bëri ma dal leen ak jàmm rek si biir plateau bi waar rek comme ni nga ko faral di defee dañ ne business profile te loo yëngu lu ko yëngal la ko ëpp doole kër gi nag amaat neen keneen koo xamante ne moom macha allah dafay ne global bee la te moom tey moo yëngal fii bàyyi leen ko rek mu nuyoo wax leen moom mooy kan laataa ñuy dugg ci waxtaan bi asalaamaaleykum nuyu naa la. maaleykum salaam Aïcha. am na def. jàmm maa ngi wax jërëjëf si loo ma invité. Mhm. man maay Fatmata Balde. I am a wife and a mother of three beautiful girls. Okay. Oh, wow. And then maa ngi dëkk ak sama jëkkër in Bondom. Okay. Loolu moom neex na trop macha allah ñu gis ne Global Bella. yow yaay CEO bi léegi ñu lay laaj rek lan moo waral uh, nga def business tuddee ko Global Bella. Ah. Wow, man um, suma friends yi Mata Bella lañ ma dee so man glue I like the word. Mm-hmm. so ma jël glue by Bella. ba pare dafa match ak products yi. because da nga gis ne products yi da nga glue in your own skin tone fekk nekkut comme da nga hess da nga bugg a sorry da nga ñuul da nga bugg a xees mun ngaa ñuul nga use ko mën nga chocolate kola nga use ko mën mhm. ah, nga weex nga gëna a weex masha allah kon <laughs> moo tax yaa ngee glow comme noo ko waxee <laughs> waaw yow sa da nga war a glow man ma man ke dina ñëw ci gars soo seetee ñu né glow bay bella xamna dina mhm. dinaa glow rek su ko défé ñu sétan tamit di dineen glow mhm, ànd ak yow légui ñu lay like lan mo la inspire ba nga commencer business bi um suma jikar nak ba bokk na si because moom bugut yëfi makeup ah, so every time suñu waree na because time boobu suma skin bi ah, baax na ba it was kind of rough especially suma face bi mm-hmm. so suñu waree génna daf ma di wax damaa dem de daf dee xaar ba ah, ten minutes mu ne maa ngee dem pour bu ma dem rek <laughs> pour moom makeup waaye dama dee rush ma defaru Uh-huh. but after ma gis ne loolu coono la. ba pare du ma dee nangoo xaar soo ma ne xaaral ma try ma defar suma skin bi ba nga xam ne damaa confident pour génna. Uh-huh. su dee makeup bu ma sax. Uh-huh. so noonu laa um, dafa starté with the uh, Bella organic soap. yëpp products foofu la starté. waaw so man ma defar ko. ma ko defaree ma use ko for a uh, month after suma benn néebu gis ma mu ne ma ne ah yow de hmm. xaw ma looy diwoo. because xam nga nit ñi moom moos dañ lay foog ne soo glowee diw man ko ne dede du diw de man ma defaral suma bopa sabu may sangu mm -hmm. so mune mané ha man tam do ma ci may soo mhm. si laa génnee ma jokko mom tam mu sangu mu dem liggey waaw nit ñi diko ko ha yow de yañe glo lo news <laughs> <laughs> momit mune len ne du uh, diw sabu la ah. so sila ma ñëw mune mané man dama len wane suma nebu moko jaay do ko jaay so mhm. ma ma dem na man ne ha ma jaay ko. so noonu la starté. mom tam bokka na ci mom tam bokka ci si mom mo gëna glo sax <laughs> waaye after loolu. ñu ñëw ah, ah, mm, suma customers si dañ ma dee wane ok am naa problème bi ah, suuf bi baax na de bot lii laa si am comme ñu ne ma ne dama am ay picca picca mm-hmm. comme soo bësee nga am bota soo ma ne ok xaaral ma mm-hmm. naka laay def ba am loo xam ne daf ko clair so sirom bi noonu la komo bee after loolu tamit ñeneen di ma wane waaw suy daf si xaw a rof xam nga comme sooy liggéey ak nit ñi ngay wax ba pare man comme du ma la dee jaay rek dama dee jaay jël sa nomba di mm-hmm. waxtaan yow ngay am sa problème si di ma explainer through that laa dee mun a xalaat beneen product mm-hmm. mat génnee ko difficulté si wàllum business bi mm-hmm. léegi yow lan mooy sa challenges yoo xam ne yaa ngi ko face te bi boo commencé business bi am um, packaging mm-hmm. Gambia it's very difficult especially man bu mu doon gën a uh, come up taami corona bi la lockdown bi ku nekk mu ngi toog packaging bi mooy suma problème main problème bi packaging bi la Dan gis ne last time buma ma koolee sa loolu laa la ma la perfected product bi it was perfect because suma customer si sen bopa ñoo ma ko wax mm-hmm. li mom man use naa ko waaye daf ma mm-hmm. nee be pare at the end of the day dafa bax bax bo xam ñom ñoma ñoo mujjé dee maketal man fuma ma ka ni sa du ma maket but ñom ñoma ma dee maketal ah, suma benen lii bi ah, mm-hmm. kuma ma dee nonu nonu la ko mobé mom tam dafa use bala mo use product bi sax macha allah mu commencé di ma maketal just num like a product bi because of ko dégga understand so dafa dem suma customer si ñoo ma dee maketal mm-hmm. but product bi duma dee am packaging mm-hmm. packaging mooy suma problème Gambia bi loolu mooy man daal loolu laa gis ne mooy ah. problème bi yaa bande mm-hmm. banna kon loolu neex na <laughs> léegi euh, yaa ngi doon wax si sa biir wax ne comme ay ku ma dee liggéeyal ñaata youths nga employ pour ñuy liggéey ak yow ok right now ñaari nit la keneen ki moo ma dee dimbale si delivery bi xam nga loolu tam problème la ñeenee dañ dee bugga bo dañ dee tayal da ngaa gis ku ma ah man de fii laa dikka dama xaw sori ah waaye léegi starting bi dama dee ok man fii laa dikka dañ dee tayal a ñëw uh-huh. so ma gis ne loolu it's not helping so ma ne ok xaaral ma jël kii moom sax moom tam daf ma daan dimbali te du ma ko daan fay dama ko daan wax ne ah, dimal demal ma fii te daf daan dem so uh-huh. after ma ne ok man gis naa ne kii mu ngi sawar mu ma dimbale uh-huh. so xaaral man tam ma jël ko after ma jël keneen ki kat yi Kati sisi ak uh, Badou Fall ñoom ñaar ñoma day dee liggéeyal ah, Kati nak mom marketing bi she is excellent si bi ah. bu starté dafa sawar Bala maa koo jël sa mu ngi sawar légui la gëna sawar ah, ma sha allah lolu mom neex na mhm. torop légui ñan nga ñoo mëna wax ni ñoy sa main customer ñoo xamantene ñu ngi bégee ci Bella bari nañ de ah limal ma si ñetta rek <laughs> bari nañ torop ah makeup artist yi sa because ñoom mun ko wax mhm. um, awa awa awa jame moy mhm. Mama Africa waaw mom mom mu ngaa dimbali tam si marketing bi waaw moom tam mu ngi si mu ngi si gis boppam daal mm-hmm. da nga gis tamit am na ñeneen Aïcha moom mu ngi ruusu bi moom ak sistam bi waaw moom sa <laughs> moom sa toomaa la uh-huh. suma sista tamit ma famille bi su ma friends yi daal ñoom ñu bari ñu ngi see yëngu mm-hmm. ñu bëri bari pare ñu ngi see gis seen boppa uh-huh, di nga gis ñoom ndey fele ñoom ñëpp ñu ngi maa jàppale daal ah, kay loolu <laughs> léegi lan nga ñoom mën a wax ne mooy sa success story so far depuis boo commencé bi am mu ngee dem daal because maa ngi gi maa si mun a am friends mhm. imagine rek ñoo xam ne musuma leen a gis dañ dee mun a waxtaan foog naa true loolu laa ñëw si programme bi um, loolu is a it's a success mhm. because foofu laa xamante ñu bëri dama dee waxtaan a gars yi comme dama leen xam nga am fele bintu every day dañ dee waxtaan suñu waxtaanee daf dee mel ni dañ xamante long time waaw so it's it's nice to to mhm. am nit ñi waaw because ñu ne nit nit ay garabam waaw soo léegi yow sa challenges yi lan nga foog ne mooy solution bi pour euh, nga mun koy solve. foog naa Gambie bi dañ need packaging dañ need somebody to come moom su dee dañ koo defaral suñu bopp sax fekk for exemple nga am sa idea. Mhm. dama am an idea of packaging damaa dem si ñoom rek ma ne la man nii laa ko buggee mhm. ñu defaral ma ko instead of ñuy xaar ñuy order. Mhm. xam nga jamono corona bii nii. soo waroon a order. dangaa xaar dafa waste time sa product si dañoo toog sa customer si toog maa nga dugal ko si loo xam ne la du du attractive mhm. because right now xam naa ne product bi dafa baax mhm. but su amutee nice packaging mhm. dañoo foog ne baaxut exactly dañu pare dañu wane it's not nice but gi nga lii noo ko gisee nii da ngaa wane waaw man table bi sax noo ko décoré tey moom ma njëkk a ne moom dafa ñëw rek mu ma table bi dama bëgg a décoré ko ba mu ne waaw ba mu attractif nga xam ne products yi dinañ génn loolu moom neex na ma trop macha allah. léegi naka nga nekk du dundee as a wife ak business bi. um it's a bit hard. because time boobu man daan dem dama daan dem liggéey sax boo dama de woon ah. Mm. su ma xëy na su ma amee suma business yi booba si laay noppale ko bon gis naa ni léegi laa dee gën a soona mhm. parce que man maa dee defar euh, yëpp man maa saabu bi from scratch mhm. man maa badu nag ñoo dee mun a ànd jënd bagage yi bon man maa dee defar saabu man keena mhm. maa dee defar scrub bi maa dee defar euh, sérum bi yëpp man maa ko dee defar daal soo da nga gis ne dama dee teel a eew bon du ma dee teel a pare sometimes seven o'clock daf dee fekk jeexal ma suma liggéey néeg bi pare suma doom yi kii di yaaxa fii kii di yaaxa fële maa dawantu soo ma gisee comme dof waaw yombut nag ak wadam yow kay boo duggatee xale la ñu ka complet xale yi moo tax ma yaaga kon loolu moo xam si la bokk tamit a ñàkk léegi nga dee jotee sa raw material si bi nga mën a process sa product si waaw bi si bi mm-hmm. la uh-huh. ko di jëndee mooy marché Serekunda si marché ñag bi waaw ñoom ñoo dee jaay Ghana Ghanaian black soap bi yeneen products yi nag du ma ko dee jënd comme neem tree bi xam nga bi it's neem scrub mm-hmm. ci koñ bi mu ngi am guy bi badu anyway <laughs> moo ne dem dogalaat uh-huh. last time bi sax dama contractoon suma sister in law mm-hmm. moo ma jog moo ko génnee mm-hmm. weer ko mu woowu am nga noonu laa di amee mm-hmm. yeneen products yi daal but mainly nag si marché bi laa ko dee jëndee mu ngoog dégg ngeen mu sekkere yu su ndaw nag dem leen guloo mbaay bi waaw yooyu moom foog nga foog nga mos rek mu jaar si la ñëw a xam <laughs> waaw mu nga léegi yow lan nga ñëw mën a xelala youth si Gambia um, comme liggéey daal mu ngi fii mhm. comme suñ leen jàppalee ñeneen ñi dañ need encouragement mhm. ñeneen ñi euh, duñ dañ need comme ku leen push mhm. waaw comme soo suñu amee dat sort of thing comme su ma la waxee packaging bi xam nga soo amee fii euh, ñu ubbi fii compagnie foog nga employ nit ñi ñu liggéeyal loolu rek euh, sort of employment la soo dañ war a am façon yooyu noonu dañ war a am factories daal waaw dégg ngeen boobu sax bokk na si advice yi mu gog léegi rek balaa ñuy tàggatoo bëgg naa nga wax ñu comme sa produit si benn bu nekk lan la moo def si yaram mhm. ak lan ak lan ak lan mooy njëriñam ok like uh, saabu bi mhm. baax na because um, dafa am black soap bi mhm. am na aloe vera am na honey am na limon Mm-hmm. waaw so yëpp natural la macha la waaw ah, ak yu sew sew yi ah, ak uh, bela oil si tam ñu ngi fa. Um, da gis ne xanga limon baax na dafa mm-hmm. dog head. dafa génnee taas. Mm-hmm. honey bi tamit baax na dafa smooth loo yaram. daf daa def nga glow. waaw loolu saabu moom soo sangoo rek. force de nga sangoo rek di nga xam ne yaa ngi glow. because danaa soft. <laughs> nga ñëw am scrub bi scrub bi dead skin cells si la dee génne. niim niim soo ko xamee man taami xale. di nga gis ne xale yi suñu amee waga sax moom lañ dee use ñu sanga leen mm-hmm. daf dee génne waga bi so di gis ne is very effective picca picca yi mm-hmm. so neem scrub bi moom si la ñëw sérum mm-hmm. bi nag moom waxi noppi ay feebar waaw boobu daf dee liisloo kanam nee rek gisuloo kanam bi mu ngi liis macha allah waaw léegi nag comme que agsi nañ si cappaandaw bi comme ni nga ko faral di defee dafa dugg si nag mu ne ma ay sa mbaaloo ma rek man bu ma woyloo <laughs> wala nga léebloo ma léegi nag tey dinaa la baalal waaw xam naa ne soo dellu see yeneen di product mhm. boobu di nga ma léebal wala nga wuyal ma léegi da ngay tàggatoog nii seetaan rek ah, su boobaa léegi nga jox gaay sa contact ak sa Facebook page su ko defee ku soxla Global Bella rek mhm. mu joxuñ foofu la waaw suma contact bi 6 399 0093 ku bugga anything rek mun nga ma whatsapp sax su la neexee bu ma direct am always online mhm. because ñeneen ñi loolu moo déggee na yomb a call bi mhm. um, uh, soo buggee uh, suma um, suma facebook bi mhm. ak suma Instagram bi is Glow by Bella. Glow by Bella. waaw. ba pare may wax suma customer si jërëjëf. because dañ ma jappalé torop. without dem Glow du dem fen ñu ngi jënda ñu ma maketal. and xam nga loolu dafa nee. loolu so jërëjëf rek la leen a wax. ba pare ñepp dama bëgg bala balaa year end of year ñepp ñoo Glow. ba pare ma ngi gërëm suma sister bi. moy ah, moy ku nekk ci product bi. boobu nekku fi but suñ poster bi mo fa nekk. mom dama ko di disturb torop. Hmm. every time dama ko di nekk di call. dimbale ma si lii. dimbale ma si lii bindal ma lii. <laughs> mu nangu waaw mu nangu rek ndeysaan gis nga fu ma doon ñëw sax foofu laa bàyyee suma doom yi. dama soona de dama liggéey. <laughs> waaw ba pare di gërëm suma jëkkër tamit xam nga moom tam daf ma support daf ma mhm. dee marketal sax. Ah, te su ma buggee sometimes daf ma dee distributal daf ko dee yóbbu si nit ñi moom tam foog ma gërëm ko. waaw ba pare maa ngi gërëm suma famille bi yëpp suma goro yi suma papa tamit. Ah, ko si ñaan yi maa ngi wax amin ñu ngi nangu. suma sisters yi yëpp suma friends yi. Mhm. waaw ak suma customers ak yooyu tamit lu nga invasi ah, lo ma invité. aha man maa ngi sa ah, man dal xam nga man yeen la fi tok man <laughs> kuy yengu ci dara rek bu naa nga ñëw fii jàkkaarloog man suko defé ñu jakarlo mhm. nga wax gaay ci lan ngay yengu mhm. lolu mom neex na xam naa la ñew jaar rek tagato tay wa di leen joxaat di dajé rek be benen show muy lo yengu comme niñ ko faral di defé rek xaar leen ko fii si Sahel Network TV everyday by 5:30 di ngeen gis tu bes kep ko xamne ne yaa ngi yëngu dara rek di ko gis Masha allah bye bye.